Thierno Moule Sow léegi léegi nga loo gis léegi léegi nga loo yëg inshallah nga loo gis bu rab nga loo yëg dëgg dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee dey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh la xalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita le roi des Djinné aye jabar wér naa yang may seen kam ñu selli kam ñu selli kam ñu allahu akbar wér naa yey yey yey yey yey ala yow je suis guéri consulte-moi voyons je suis guéri dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee goney Sénégal war nañoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita le roi des Djinné aye léegi Soundiata Keita mooy sa maam doomi jàmbaar jàmbaar rek mënu doon jàmbaar ci sa papa ak ci sa yaay booy la marabu traditionnel et social e jëloo e sa alal rek yamale e ko njaboot yaa ngi def ci ak ci jàkk yi askan wi benn sa weeru koor nga jagle suukaru koor ceeb ba diwlin ak lépp lu si ànd di Thierno Moule Sow sa ànd bi yàlla ko boyal kon jaam bi mënuloo lenn xam-xamam yàlla moo ko ko jagleel bàyyi mu dem kon roy du nu rog biir Thierno Moule Moule Moule Sow Thierno Moule Moule Moule Sow borom jinne yi Moule Moule Sow Thierno Moule Moule Moule Sow le roi du Mandé Moule Moule Sow Thierno Moule sow borom jinne yi mule mule sow Thierno Moule Moule Moule Sow le roi du mandeng Thierno Moule Lo Serna Serna be walyal walyal be don la gandal taw la gandal mbo gandal yo e mbo allah okkani gandal ngal gandal wawa jiidude oɗon naɓe jaaɓi golle ma afrique jaaɓi golle ma lorwadi mande koy nani so jata kayta woni tanol ma the king of the nani soxna mule mule mule sow borom jinne yi mule mule sow ceerno mule mule mule sow le roi di mandey mule mule sow ceerno mule mule mule sow borom jinne yi mule mule sow ceerno mule mule mule sow le roi di mandey dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita heart did you lay? jaale jaale fu metti metti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man mii maa bugg a wér te loo da nga jaale jaale fu metti metti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man mii maa bugg a wér te loo kon topp ma topp ma ma yóbbu la ci doomu soxna Mariama Kamara Cerno Mulle Sow léegi léegi nga am loo gis léegi léegi nga loo yëg inshallah nga loo gis bu soobee rab nga am loo dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee mbokku téléspectateurs yi mbokku internautes yi seetaan sur la TMS TV euh, tey di quinzième jour fukki fan ak juróom ci weeru koor wi tey nag tey dafa mel ni tey bu doon euh, maanaam lu ñuy évaluer en terme de distance ñu ne ñu ngi nekk à mi-chemin maanaam àgg nañ ci digg bi xaajal nañ alors ñu ngi fii en direct à la clinique la nouvelle clinique El Hadj Thierno Moulay Sow désormais le lieu de convergence euh, des talibés, le lieu de convergence aussi des patients et des accompagnateurs pour venir répondre à l'appel du grand marabout, à l'appel du Khalif général El Hadj Thierno Moulay Sow alors ñu nekk nag war leen a dégtal les temps forts des préparatifs euh, du ndogu alors gis ngeen en image mburu mi wàcc na gis ngeen aussi en image les talibés toujours fidèles au rendez-vous qui sont en train de s'activer ah pour les besoins des repas yi nga xam ne moom la ñuy servir ceux-là qui auront la chance d'être là à l'heure de la coupure du jeûne muy nag un décor auquel nous sommes habitués parce que nag li ñuy wax ce n'est pas la première fois Et certainement, ce ne sera pas la dernière fois que El Hadj Thierno Moulay Sow, un homme d'une grande générosité, un homme d'une dimension sociale exceptionnelle, continue encore à servir aux populations, à servir aux talibés, à servir aux musulmans un repas ndogu comme ni mu amee habitude leen ko jox. La TMS TV nag est là fidèle au rendez-vous, au rendez-vous des moments historiques. mais aussi au rendez-vous vraiment des événements yi nga xam ne ni tey dañuy marquer les activités de El Hadj Thierno Moulay Sow alors ngeen gis sur ma gauche le jeune journaliste reporter mais aussi qui a en tout cas ki s'est qui, qui s'est une place importante dans le dispositif de la communication du marabout muy Seydou kan alors mu ngi nii toog très concentré sur son portable et certainement nous allons essayer de le taquiner un peu et de déranger sa tranquillité pour pouvoir avoir quelques réactions. Mais je Tok aussi toujours, je commence d'abord par ceux-là qui ont la responsabilité de nous faire vivre de grands moments de reportage. Et elles sont devenues des jumelles. Moui, Moui, Souni Djarbadi, Antawad, Anta Wade que vous voyez sagement assise à côté de l'autre jumelle je veux parler de Fatima Fatima alors ñu ngi noonu toog nag euh, en attendant quand même de pouvoir nous accompagner sur le sur le direct gis ngeen Ousmane na ngi ne toog moom tamit ah lui aussi il est là pour les besoins de la sécurité mais aussi de veiller au grain pour tous les mouvements mais aussi orienter les gens qui auront besoin de renseignements alors donc ci caméra bi ñu ànd ceeg euh, les deux omniprésents euh, Aliou ak euh, ki nga xam mooy Alseni parce que nous avons deux Alseni un Alseni caméraman professionnel d'image mais aussi Alseni ki nga xam ne moom mooy moom mooy le préposé euh, à l'organisation vraiment le secrétaire particulier du marabout alors dégg ngeen nag en fond sonore la bonne ambiance qui accompagne vraiment ces préparatifs de de de de ndogu voilà de ngeen leen noonu rek ah alors ñu ngi nii di liggéey dans la bonne ambiance dans la bonne humeur ces grandes dames les talibés du marabout ñu ngi nii toog ñoom tamit vraiment fidèles au rendez-vous alors vous avez entendu tout à l'heure la voix de la grande artiste C'est là qu'on ne présente plus. C'est vrai que quand elle chante, elle nous rappelle les grandes chanteuses à l'image de Mao Kouaté et autres. Nous, nous avons notre euh, Thiocho alors à chaque fois que mu ñu gis ko rek dañuy kontaan ci baat bi macha allah mais aussi woy yu neex yi nga xam ne daf koy gratifier barki démb keroog fële dégg ngeen ko keroog ci tudd bi euh, ba mu dugg si rek lay xam ne ñëw na parce que nag li ñu wax naan autorail bu jubee gare dafay corner moom kenn du ko laajte muy jotu moom alors tout à l'heure la réaction vraiment euh, des talibés des dames qui sont là ñoom ñëpp ñu ngi fi au grand complet mais af seeni euh, dañ koy jël moom tam comme d'habitude rek mu wax ñu les dispositifs yi nga xam ne ni ñu ngi koy faral di jël pour les besoins de cette quinzième cette quinzième journée de préparation de boobu may wax na nag bu fekkoon tey distance la tey on est à mi-chemin parce que tey lañ am 15 jours 15 jours du mois béni de Ramadan Alseni dégg naa léegi gars yi xale yi di la tooñ de ñoom ñoom ñoom ant ak ñu lay tooñ mais gars yi ñu ne ñu ne ñu temps yi dangay teg teg yu foor ngay teg tey da nga génnee blanc tey ah daal di koy kase ak sa jiin dóor daal di weex tal ah tey moom da nga blanc <laughs> blanc tey keroog maa lay tooñ ma ne mais Alseni yow dafa mel yow kam euh, ji li mbay moo gën a neex ci yow parce que temps yi da nga gën a ceene quoi affaire nu mu demee <laughs> waaw jërëjëf grand Aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu yëpp di jiitoo nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila El Hadj Thierno Moule Sow le roi de la médecine traditionnelle du monde le king of king le maréchal borom bëtu allah muhammad borom baatu baatin borom kum fayakum borom samsi samarusi buur jinnay macha allah di nuy la princesse madame Sow la reine di ko ziar bu baax baa di ko ñaanal jàmm di nuyu prince Moule bu baax baa di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér bi yaram yàlla yàlla romb génération yëpp si barke yàlla ak yeneen bi ak ñett cernum lay sooy macha allah di nuyu aussi deuxième prince bi baax baax di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér bu yaram yàlla yàlla romb génération yëpp si barke yàlla ak yeneen bi ak ñett cernum lay sooy di nuyu ajaratu mariama camara di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm di nuyu soxna di ko ziar bu baax baax di ko ñaanal jàmm di nuyu jinna mule mule yëpp di leen ziar bu baax baax di leen ñaanal jàmm di nuyu association Thierno Moule Famille Darou Laye pour le développement et l'entraide di ko dalee si jawriñ bi Mama Kadi Mboup muy fii toog maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu jawriñ Mama Kadiata Ba di nuyu jawriñ Mama Tunkara di nuyu jawriñ Gilaay Sey di nuyu membre de bureau yëpp Moule Moule yëpp di ko dalee ci kaw boo suuf bàyyuma kenn macha allah. di nuyu aussi association Thierno Moule Famille Darou Laye bu international euh, di ko dalee si jawriñ yi. Eh, jëwriñ tonton so Seck Oumar jëwriñ tonton Fabakary Sonko jëwriñ tonton Galasso jëwriñ Sokhna Dikel So jëwriñ Sokhna Fama So ak mule mule yi nga xamante ñoom ñoom ñoo lay représenté fii si addiya doole bi si ndogg mule bi ku mel ni Adama Vizini trawre mu ngi fii macha allah si waar bi ku mel ni Youssoufa mule aussi moom tam mu ngi fii si waar bi macha allah. du nuyu mbokku jullit yi yëpp di nuyu aussi équipe TMS TV yëpp bàyyi ma kenn macha allah di amati kontaan ak mbégte di ñëwaat si la TMS TV comme d'habitude si ndogu mule bi tey nu sommes la quinzième journée si mois ramadan bi macha allah ngay gis nañ dem jël mburu yi si four bi euh, macha allah vraiment ñu indi ko insay ni ñu ngi koy dagg ni macha allah euh, tey noonu la ñuy choisir def si mburu yi macha allah saucisson euh, ak mayonnaise moom la choisir def si mburu bi macha allah donc si loolu noonu gis nga mbure mu lay dagg nañ yëpp ba mu pare macha allah instant ni dañuy indi li nga xamante loolu la ñu def ci biir mburu bi su ko defee ñu def ko avec yéene donc yeneen mbule mbule yi nga xamante aussi ñu ngi si yoon bi ñoom tam ñu ñaan yàlla si mboro yàlla ni yëg si jàmm si ak salaam si bàkki ñi Thierno Moule Sow macha allah waaw sa question boobu noonu di Anta ak Fatima ñu ma ma kanaa koor bi moo bi maa nga parfois aussi il nga ceene parce que du chaque jour aussi ngay jeex macha allah yàlla rek loolu mooy yàlla yàlla yokk ko allah donc loolu sama taala man sama période moom si ñëwee moom dama ko jaar mais parfois noonu day am période nga xamante su ñëwee rek donc euh, dama jéem donc maa ngi koy remarqué bu baax a baax macha allah si koor bi aussi maa ngi si koor bi waaw bu may commencé woor à l'âge de quinze ans. <laughs> <laughs> parfois noonu dama si dem de ah, mais waaw parfois dama si jaar quoi parfois parfois dama si jaar mais à tout temps quoi macha allah vraiment di sant di gërëm yëpp macha allah waaw ah, ngeen gis na say ni vraiment eh, mule mule yi vraiment dañuy jóge fu ne di ñëw eh, vraiment ñëw si Hadia doole bi ak ñeneen ñi nga xamante vraiment ñu ngi ñëw si Hadia aussi poos yi eh, ku mel ni Sokhna Fatou Diop keroog ñëw na fi indi fi paanu beñ ak kaalis lu bare bare vraiment sukkar koor Euh, ku mel ni aussi maman Khadjata Ba ñëw na fi indi ndokk lu bare bare ak mayonnaise ak chocolat ak ay tâche macha allah euh, comme sukkar koor ku mel ni ajaratu maman Karim Mboup aussi ñëw na fi indi fi cent mille francs euh, jokko sëriñ bi sukkar koor ku mel ni aussi yaay Seydaan Ndeye Marème Ndiaye moom tam démb ñëw na fi indi cent mille francs pour sukkar koor macha allah ngeen gis ne taalibe vraiment ay jàmbaar lañ ñu ngi ñëw macha allah am na ñeneen ñi ñëw si yoon bi macha allah ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ si yegg si jàmm si barke ak yàlla ak yeneen ba ñett cëram lay sooy ndax vraiment taalibe yi vraiment jàmbaar lañ am na ñoo xam ne seen looko jotul seen ginnaaw mais adiya doole bi ñu ngi siy bàyyi xel bu baax a baax adiya doole si jotee macha allah loolu moom munoo wax ne ne amoo adiya poos mais adiya doole si jotee moom da nga war a jóg ñëw def adiya doole Euh, génn nañ ñenn ñi donc ñoom dañu ñëw def seen sukkar koor macha allah si loolu na euh, association mu Moule Famille Darou Lay national waaye instant ni ñu yëpp vraiment ñu ngi takk ba mu dëgër macha allah di waaj ñëw su maanaam di waaj a ñëw jóg suñu sëriñ sukkar koor dañu nekk di contribuer ci association bi kenn ku nekk wax nañ ko lu bu war a jox su ko defee dañuy dajale loolu ci tour association bi yëpp ñu joxe ko mais addi addi addi kii sukkar koor individuel bi aussi vraiment ku am rek mun na ñëw indi joxe macha allah loolu yëpp am na solo vraiment ndax sëriñ bi moom mënuñu ko fay sëriñ bi saa bu ñu jàkkee jàkkale suñ ko wooyee macha allah dina ñëw wàllu ñu fajal ñu suñu aada ci baatin donc loolu ñu yëpp xam nañ ko mooy national mooy international mooy Sénégal kon sëriñ bi mënuñu ko fay sëriñ bi lu ñu defar ñun taalibe yi macha allah sant yàlla rek euh, vraiment mënuñu ko fay ndaa soo duggee rek association bi kese kese nga am ay jafe-jafe dugg si association bi euh, sa aaja day faj day am ñi bare bare balaa ñu dugg si association bi vraiment amoon na ay jafe-jafe seen wàllu yaram seen famille ainsi de suite ainsi si mais bu ñu duggee lépp changé macha allah ñu nekkaat impact ndaa association bi association yi dafa bari façon mais association Thierno Moule Sow boobu kenn la si àdduna bi. association boo xam ne dañ ko fondé ak baati xam-xam ak xam bu sel macha allah moo tax képp ku fi dugg eh, vraiment da ngay gis sa bopp bu baax a baax kenn ku nekk ku nekk ci biir association bi yaa ngi gis sa bopp ku wax ak ku waxul te jëf naa ne yëpp ñu ngi war yëpp ñu ngi gis aussi kon loolu sant yàlla la si loolu aussi sëriñ bi dañoo boole ñu yëpp mu ne ñëw lañu bokk ndey ak baay ànd ak man di liggéey yàlla ak yeneen bi ndax gis nañ ne mission bu nga xamante moom la ko yàlla jox vraiment mu ngi koy mbotaal sek sek macha allah bu mu feeñee si la lépp leere à travers TMS TV ngeen gis ne vraiment euh, faju yi muy def macha allah sur le première histoire du monde mun na wax ne daal monde du ñu wax Afrique parce que àdduna bi yëpp ñu ngi koy suivre nit ñi dañuy jóge fu na si àdduna bi ñuy jóge Allemagne ñi France ñi États-Unis et ñi ñëw si moom su fekkee ne moom lu mu lu muy def nii su fekkee ne loolu am na foofu kon ñoom du dagg seen biir kon xam ngeen ne vraiment àdduna yëpp mu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax macha allah. moo tax euh, euh, macha allah euh, si laa duggoon tëj macha allah ñaan yàlla suñu borom ñetti tur am yi macha allah fu nit jàkk-jàkkale si àdduna bi foo ko foo rek macha allah mm-hmm. pour mu ñëw wuy la fajal ko ajaam yàlla nangul ko loolu moo tax ñett yenn mu lay soo insay ni dañoo lóbbi àdduna bi foo mun mënta nekk si àdduna bi soo jàkkee jàkkale rek soo wookee car cer mu lay soo barke cer na mu lay soo barke cer na mu lay soo ñetti yoon macha allah sëriñ bi day daal di wàcc vraiment wala fajal la sa aajo si baatin kon loolu social bu mag la social boo xam ne ne vraiment fu nga naroon fay ay millions euh, macha allah nga tudd rek Thierno lay Sow macha allah sa aajo faj gis nañ ne ñi nga xamante ñu bare bare ñu jóge international loolu kese moo leen takk déplacé wu foofu international dagg seen visa ñëw fii si sëriñ bi ndaa turu sëriñ bi ñu utiliser vraiment ñu gis seen bopp loolu fajal seen aaja defar leen euh, boo ñu nekkaat ay nit kon loolu sëriñ bi mënuñu ko fay. soo gisee instant yi nii kër yi di juboo sëriñ bi la soo gisee jëkkër ak jabar di juboo sëriñ bi la soo gisee doom ak yaay di juboo sëriñ bi la soo gisee jinna yëpp di riir naa ne sëriñ bi sëriñ bi Thierno mm. eh, Moule Sow ndax lu ko yàlla may la parce que jinna mun na daanu fale si États-Unis mu ne bu du Thierno Moule Sow amul kenn ku ma munal dara kon xam nga ne kooku Thierno Moule Sow kenn la si àdduna bi am na ay jinne yi nga xamante vraiment eh, soo gisee ñu wàcc àdduna sëriñ bi moo tax ñu ñoom si asnaaw si kaw la ñu nekkoon ñi digg riir riir yi jinne yi nekkoon si àdduna fii di riir di riir di yëg ci kaw vraiment riir boobu noonu la ji jinne yooyu dégg ñi daal di wàcc kool naka la naka la situation bi demee ku mel ni <clears throat> ku mel ni Mouhamadou Moustapha sëriñ bi moo tax mu wàcc àdduna moom tax ci kaw asamaan bi fale la nekkoon euh, sëriñ bi moo tax mu wàcc mais Mouhamadou Moustapha moom moom ñëwloon pour xeex dafa ñëwoon pour euh, vraiment jébbal mu ñëw jébbal def ay révélation yu bare bare si la troisième ambassadeur Iblis seet ko foofu noonu gis ko donc wàcc àdduna moom tam bu mu wàccee àdduna hésite la ko wàccoon mu ñëw foofu jaar ñëw si sëriñ bu mu ñëwee foofu noonu macha allah sëriñ bi jàpp ko mu woo foofu ay éléments yu bare bare ñi nga xamante dañoo nekkoon si géej mu wooleem pour ñu ñëw jinna yooyu noonu dañ doon seen maanaam dañuy seen Mouhamadou Moustapha kii euh, Ouda Sakir di leen di woo ñi seen Ouda Sakir ñu xam ne ne ugul safir fu mu nekk ñoom suñ ñëwee foofu foofu bàkkul si ñoom ndaa safara moo fi nekk seen safara la moo ndaa jinna shatin la macha allah moo tax ñoom yëpp dinañu daal di arrière sëriñ bi combat ak jinna boobu noonu combat ak moom daanu ko mun ko macha allah tuddee ko papa Mamadou Aliou Sow jinna boobu noonu macha allah def naa ne yëpp gis nañ combat bi combat bi méttoon na loolu boo yëpp tiit combat boobu noonu eh, lu ñuy fàttali mooy Jean bu mu jàppee Jean Moulin aussi vraiment fale si 19 ngeen gis na ne aussi jinna boobu aussi jinna bu am xam-xam la jinna bu am doole la macha allah jinna bi dafa ñëwoon justement pour euh, lu ko yëkkati woon pour rey sëriñ bi macha allah bu mu ñëwee noonu sëriñ bi xeex ak moom si baati xeex ak moom si baati mooy muy jël di sandi sëriñ bi sëriñ bi di jël di ko sandi combat bi dem boo métti ñi nga xamante sax dañu doon liggéey ci biir kër gi waxuma la ñuy faj ñoom yëpp dañoo daal di daw ndax combat bu métti sëriñ bi daal di euh, sëriñ bi daal di munu jinna boobu noonu tuubaal ko dugal ko si dina moo tax nga xam ne Thierno Moule Sow du hasard Thierno Moule Sow macha allah dañ koy bàyyi ak yàlla rek na ko yàlla fay macha allah yàlla yàlla gën a yokk leer bi yàlla yàlla gën a yokk makaama bi yàlla yàlla gën a yokk xam-xam bi si barki yàlla gi yenente bi ak ñett Thierno Moule Sow macha allah grand merci aussi euh, quelqu'un qui est là présent lui aussi comme je l'ai dit tantôt alors moi j'ai eu la chance d'aller le chercher le jour où il venait de débarquer de l'aéroport Blaise Diagne venant fraîchement du Maroc ma xool ko mu yor ay bagages am ne ko yow lañ doon jël si mu ne effectivement noo tudd mu ne man maay Youssouf Moulé alors ñu jël ko en interview automatiquement j'ai titré ma ne le retour du Marocain après dix ans d'absence du Sénégal il va enfin retrouver son marabout qu'il n'a jamais vu donc muy ay moments yu émouvant parce que koo xam ne ni da nga gis sëriñ ci video en image ngay jëflanteek moom en image des milliers et des milliers de kilomètres séparés leen nga toog dix ans génn Sénégal won ginnaaw Sénégal nga toog daal dina may ñëw mais bu ma ñëwee tey une seule destination muy alaaj mu lay Sow une seule personne muy alaaj Thierno Moulay Sow kooku mooy Youssouf Moulay mais bi mu ñëwee nag dañ ko ci yokkal Mouhamed Youssouf Moulay mu yeesal njébalam yeesal tuubam sëriñ bi ne Youssouf Moulay ngi nii sama Youssouf Moulay la mais boole naa ci Mouhamed Youssouf Moulay comme que moom nee na Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam lépp lu am moom la mu booleel ko ci tuur boobu mu ñëw nag comme ni Alseeni di wax ci liggéey bi poosam dooleem fekkewu ko lépp lu ñu yëkkati rek mu ngi ci kër gi di liggéeyal keroog ba sëñ bi waxee ne ko yaa ngi fii ba kañ mu ne ko fii laay toog ren bu soobee yàlla weeru koor nga xam ne mooy sangu weer dama ko fas yéene woor sa wet kooku mooy Youssouf Moulay Youssouf ñu jox la kàddu gi yow tamit kër Daaru Laay kër yàlla kër yónnee salaam muy kër Thierno Moulay di jàkka di juma këru diine kër lislaam kër yokkute këru bànne këru mbégte macha allah ñu ngi nuyu suñu sëriñ bu baax a baax yal ko yàlla fay xolom moom mi ñu taxaw suba ngoon guddeeg bëccëg macha allah li ñu xam ak li ñu xamul li ñu yëg ak li ñu yëgul mënuñu koo fay yal ko yàlla fay xolom ndax moom taxaw nañu bu baax a baax suñu àdduna macha allah biñ nekkee Maroc méttoon na lool sonnoon nañu lool gisuñu yaay gisuñu baay gisuñu mag ñu rakk moom rek la ñu gisoon mooy ñëw di ñu taxaw di ñu aar di ñu sàmm di ñu musal ci lu bare bare bare macha allah ba di ñu dellusiwaat fii ci réew mi ndax xalaatuñu woon tegaat suñu tànk ci Sénégal yàlla ak moom moo ñu jàppale ba ñu mën dellusi fii ci réew mi ba ñu toog fii di wax ak waa Sénégal ñëpp di ñu dégg waa international national Sénégal bi ak àdduna bi yëpp waaye nekk di ñu dégg. dañu xam ne Youssouf Mouhamed Youssouf mu lay mii Thierno mu lay Sow mi xam ne yàlla kàttanal ko sàmm ko yal ko yàlla may ati jinne yi moo ma indi fi ci réew mi ma di ko di ko ñaanal rek yal na ko yàlla may ati jinne yi macha allah di am kontante bu bari tamit ci famille bi ak euh, bébé bi macha allah yal ko yàlla may ati jinne yi yàlla aar ko sàmm ko ba mu màgg ci ci loxoom macha allah ba mu am mbégte gu bari ci moom yàlla aar leen ñoom ñee ñëpp ñoom ñaar ñëpp macha allah ñu dem ba màgg. ñu def lu seen papa deful ñu dimbale mbindeef yi jàmm yàlla yi ñu sàmm leen bu baax a baax macha allah ñu def kéemtaan boo xam ne seen papa defuñu ko ci aw suuf incha allah rabbi maa leen ñaanal jàmm ju bëri ba di nuyu tamit suñu yaay Mariama ak laa ren ak goroom yi macha allah di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm macha allah di nuyu national ak Sénégal bi. ak international yëpp maa leen nuyu tamit deen jox seen wàccuwaay ak mhm. képp ko xam ne soppee Thierno Moulé Sow nga rek mhm. maa leen nuyu deen jox seen wàccuwaay mhm. ma di leen ñaanal jàmm macha allah di xaar question yi loo wax rek waaw waaw euh, Youssou Youssou la question que moi j'ai envie de te projet mooy euh, yaa ngi nekk Maroc fukki at ñëw Sénégal ngay gis sëriñ bi ci ay image commencé jëflante moom am contact ak moom bon koo xam ne mosoo ko gis da nga koy gis ci image rek bi nga ñëwee premier jour bi nga ñëwee ba jàkkaarlook moom ban sentiment nga am est-ce que nit ki changé na ci yow ou bien tu as vu la même personne que tu as vu en image. waaw doo nekkee ci bitim réew dina am changement parce que la ngay foog lu double nga fay ñëw wala triple parce que da nga koy gis ci image yi mais doo ñëwee ba jàkkaarloog moom leneen ngay gis. <laughs> waaw loo ñëwee ba jàkkaarloo moom daan gis ndax benn bi ma ñëwee fii man du ko jigee sa biir day métti ah saa yu mu ko jigee sa biir day métti hmm. waaw ba yenn saa yi sax biir biir bu la may def waaw pare nag man dama doon tey fii dama doon nelaw nelaw yu metti sax bi may doog a ñëw nelaw yu metti sax parce que du ko jigee damay sànni sa biir bu metti boo xam ni gëj na maa dal sama àdduna macha allah moo tax ma xam ni li ngay gis fële doo ñëwee du triple ngay gis leneen ngay gis lu raw loolu da ngay foog doo ñëwee lu gën a rëy loolu nga fi fekk waaw mu ñun nag yal ko yàlla gën a fay xolom waaw fu mu ne nii ñun ñu ngi ci këram macha allah ndogu yi rafet na lool mu ngi teral jaam yi mu ngi teral mbindeef yi mu ngi teral doomu aadama yi ndax li mu def nii rëy na musuma ko gis ci àdduna de li mu def nii musuma ko gis ci àdduna nekk naa Maroc marocain yi hmm. buñ dee def lii day am ñoo xam ni dañuy di ñi am doole ñooy dem lekk ca place yi place bi nga xam ne boroom niiw di doole ñoom ñooy dem ca ca mbeddam lañu laalal ca poussière ba fa lañ koy tegee te na ñam bu bon lay doon de du ñam bu baax voilà mais nag lii na mu lay soo xamul borom doole xamul ko xiif xamul ko mar moom ñëpp lay jox ku ñëw mu ne defar leen ba mu baax nga jox ñëpp lekk ba suur te li mu def daa rëy sa xol mburi ni ñu bare def ci soos ak def ci yëpp man nii sax man ne ah man de fii laa ko mos a gis sama àdduna <laughs> waaw fii laa ko mos a gis sama àdduna te ba pare nag li ci gën a jaaxle man li ma gën a jaaxal xam nga man xaw naa fa yàgg tuuti ci mm-hmm. koor gi mm-hmm. mais li ma liggéey fii ci koor gi mosuma ko liggéey fenn ci àdduna mm-hmm. te mosumaa toog nag ba ma sant ni sonn naa saa ñuy liggéey wallaay naxuma la mosumaa yëg ni coono nekk na sama yaram wala yëg naa ni ni sama xol mu ngi mu ngi xëxët xëxët ndax moom mu ngi ñuy ñuy dooleel café gi diñ ci nekkee day mel ni dañuy mel ni motoor du ñu nekkee ci meew mi dañuy mel ni motoor dañu ànd ak xadar boo xam ni moom rek moom rek moo ñu dooleel ndax ma man mënu musuma defar café musuma defar meew waaye nag moom moo ma taxaw ba lépp sotti xam nga kenn mu lay saw du ne su ma neexee ngëbb la voilà di ngëbb la waaw moom moo mel noonu macha allah di xaar benn question tamit incha allah rabbi question bi xanaa yéene la rek parce que euh, di ñaan yàlla déwén booy ñëwaat au moins booy ñëwaat nag nga am koo àndal ne ko soxna si <laughs> soxna saa ngi nii am déet yaa ngi reere dafa bi neex na la. neex na ma lool sax waaw li nga wax ni moom dëgg la macha allah ndax wax naa ko sax ne naa ko ngir yàlla yonent bi yow rek mën a jàppale nga may ma soxna déw ma ci kenn yaakaaruma ci kenn xalaatuma ci baay xalaatuma ci yaay waaw lépp lépp rek ci moom laa ko wér daal incha allah rek mu jàppale ma ba ma am soxna ndax nekk naa ci juróomi at. maa ngi ne ci célibataire xam nga célibataire euh, dëkk naar yi li yàlla xam doy na xam nga ceen ceen mu lay sow kenn du ko wax luy àdduna moom xam na ñun ñëpp ñun mu lay mu lay ñëpp la xam ndax moom ba mu ñëwee ñëwee sama kër gis nga mbuusi zone yi mbuusi zone yi ci moom ba muy ñëw di ma seet mbuusi nii la ñëwee mu indi ñaari mbuus mm-hmm. mais bi mu ñibbi. Mhm. mbuus yi dañoo soppeeku doon doon mbuusu jaune. doon mbuusu jaune. waaw moo tax du ma gisee fii mbuusu jaune yi ak mbuusu weex yi. misaal la ci man. c'est ba pare mu ne ma mbuus bu jaune bu ndaw bi mhm. yaa ko moom. Mhm. mais mbuusu mag bi man maa ko moom. ci la dem moo tax du ma gisee mbuus yi ak weex yi. ak jaune yi misaal bu rëy la ci man. waaw misaal lu rëy la ci man. ndax moom ba mu ñëwee man dama xamul sax ne ba ma gisee ñi gis mbuus yi premier jour. ma ne waaw lii sëñ ba mu ñëw ci man mbuus yi la indi woon bi muy dem mbuus ma daa soppi ko noonu mbuus mu soon ba pare man ba ma ñëwee fii dama gis moom nag moo xam de lu tax mu soppi ko waaw kooku moom moom rek xam naa bis di ngeen ñëw ngeen laaj ko ba nga ñëwee seet si Yuusuf nee na ni nga indi woon ñaar mais bi ngay dellu ñaari mbuusi zone nga nga jox nga jël mbuusi da nga ko sopp mu doon zone mais nga jël bu ndaw bi nga jox ko Yuusuf bu mag bi nga jël ko yóbbu nga ne bii man maa ko moom xam naa du ngeen ko laaja loolu moom na gën a leeral ndax moom mooy borom kun fa yàkkoon macha allah moom nag kenn mënu koo fay yàlla rek moo ko mën a fay ndax moom mu ngi may taxaw bu baax a baax a baax gis nga sama yaay lu mu feebar feebar ba mu ko nee cenn mu lay saw mu ne ma cenn mu lay saw dama koo ragal man ko dinaa fexe ba nga ñëw gis ko dinaa fexe ba nga ñëw gis cenn mu lay saw moom dina la faja sa aajo dina dimbale dina la sàmm dina la musal ci lépp lu bon parce que ñun suñu famille bi ñu nekk xale dañoo metti woon ci ñun waaw daaw nañu dëpp cin lu mat ñaari fat wala ñetti fan kenn du togg man ba ma xamee Thierno Moule saw ci la lépp changé suñu kër ba ñëpp di lekk di naan ba ma duggalee turu mu lay saw suñu kër ci la suñu kër soppeeku léegi clôturé nañ ko miiré nañ ko tabaxal nañu suñu yaay lépp rek ci barkeem moo tax mënuñu koo fay mais nag bal maa mën a mbég mbég mbég raa il faut sama yaay ñëw mu ñëw ba ci moom sama yaay ñëw ba ci moom mu wax ko lii mooy sama yaay moom lu ñëwee dina xam nan lay defe ak moom ak nan lay waxtaan moom booba waxtaan bi dina gën a leer macha allah comme moom mooy suñu yaay bis bu ñëwee ba toog euh, suñu dina gën a waxtaan moom lépp lépp dina gën a leer macha ndax moom day toog sant bu baax a baax suñu sëriñ di ko sant bu baax a baax a baax a baax moo tax ñun mënuñu koo fay. man nag ni ma nekkee kër gi nii nag sant naa ko bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm macha allah mënuma koo fay daal yal ko yàlla fay xolam macha allah macha allah macha allah. merci beaucoup donc vous venez de suivre en direct le témoignage encore trop émouvant de Youssouf Mohamed Youssouf Moulay ah wax yéeneem wax fi mu jaar yëpp wax aussi mébétam wax li mu bëgg te loolu yëpp daf ko bàyyi ci kàttanu suñu borom jaarale ko ci loxo yu sell yooyu muy loxo sëriñ bu mag bi di Alaaji Thierno mu lay soow le disais il est devenu l'ambassadeur de la médecine traditionnelle celui-là la le journaliste avait surnommé le phénomène universel kenn mu lay saw mu lay saw yaay baram a neen bu ko dafa neex lool kenn mu lay saw te xam ko eh Alfousseynou gis nga kii moo yàq musique bi day dàq leen ko fi. waaw waaw day yàq am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh la xalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita roi des jaale jaale mu métti métti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man mii maa bugg a wér danga jaale jaale mu métti métti nga bugg a wér waaw maa bugg a wér man mii maa bugg a wér kon topp ma waaxul topp ma ma yóbbu la ci doomu soxna Mariama Kamara Cerno Mulle Sow léegi léegi nga am loo gis léegi léegi nga loo yëg inshallah nga loo gis bu soobee rab nga am loo yëg dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee ca dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh la xalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita roi des jinne Thierno Moule Sow sa ànd bi yàlla ko boyal kon jaam bi mënuloo si lenn xam-xamam yàlla moo ko ko jagleel bàyyi mu dem kon roy du nuru biir Thierno Moule Moule Moule Sow Thierno Moule Moule Moule Sow borom jinne yi Moule Moule Sow Thierno Moule Moule Moule Sow le roi du Mandé Moule Moule Sow Thierno Moule Moule Moule Sow borom jinne yi Moulé Moulé Sow Thierno Moulé Moulé Moulé Sow te voix du Mandé Thierno Moulé Lo Serna Serna be waliyal waliyal allah hokki gandal yo emo allah hokkani gandal ngal gandal wawa jiidude oɗon naɓe jaɓi golle ma afrique o jaɓi golle ma lorwadi man ɗe koye nani so jata kayta woni tanoma the king of the king nani Sow Thierno Moule Moule Moule Sow borom jinne yi Moule Moule Sow Thierno Moule Moule Moule Sow le roi du Mandé Moule Moule Sow Thierno Moule Moule Moule Sow borom jinne yi Moule Moule Sow Thierno Moule Moule Moule Sow le roi du Mandé Moulé Moulé Sow Thierno Moulé Moulé Moulé Sow borom jinne yi Moulé Moulé Sow Thierno Moulé Moulé Moulé Sow le roi du Mandé Moulé Moulé Sow Thierno Moulé Moulé Moulé Sow borom jinne yi Moulé Moulé Sow Thierno Moulé Moulé Moulé Sow le roi du Mandé Mariama Kamara Cerno Muley Sow léegi léegi nga am loo gis léegi léegi nga am loo yëg inshallah nga am loo gis bu soobee rab nga am loo yëg te dëgg dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg dëgg war naa ñoo nañ seen yóbbante nanu gisee Cheikh Khalif général Thierno Moule Sow Soundiata Keita bir naa yaa ngi may seen bir naa allah لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا